mbokk yi. mbokk yi. suñu mbokk chrétien yi nag tàmbali nañu koor gi. waaw abbé ma ngay gindi ci wax. ak waxtaan. jëmale ko ci karam bi. waaw ndax karam bi. lu tax mu am solo. mooy ñun musulman yi bu ñu wooree. waaw foo romb da ngay xam ne dañoo woor. dëgg la waaye tamit ndawu chrétien bi nga xam ne. waaw ma nga ca biir société bi. te di dundal ak ñi nga xam ne ñooy musulman yi war nañoo bàyyi xel seen doxalin jëmale ci koor gi ak karam bi ni leen ko ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy karam bu kooru jullit ñëwee ni ñuy maanoo ñoom tamit nañ ko maanoo ci li nga xam ne moom mooy koor googu lu koy waral mooy bu kenn yàqal sa morom woor Abidjan tey loolu la indi fas yéene ko waxtaanee ñu seete Abidjan salaamaaleykum. maaleykum maa ngi leen di nuyu. maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tuur ak sa san di leen gërëm di leen sant mun ngeen bañ a way de mun bu leen gërëm di leen sant di leen ñaanal jàmm ndax weeru karim bi dafa nekk weer boo xam ne weer bu sell la gis nga diggante kal séeréer ak halpulaar diggante njaayeen ak joobeen diggante mbengeen ak faaleen ndooyeen yooyu yëpp dafa am ci chrétien yi ndax ki sant Gomis ak ki sant Pereira dañuy kalante ki sant Mendi ak ki sant Gomis ay kal nañu niñ koy kalante noonu muy dundal xol yi te neex noonu nañ koy defee waaye li nga xam ne moom lay indi tey man abésan bu ndol ndol li may xamal mooy ni nga xam ne ñoo nekk ci koor gi ci carême bi bu fekkee da nga nekk lu mel ne TFM ah. di fa liggéey te nga nekk ci bureau boo xam ne ñaari jullit fa nekk ak benn chrétien waaw léegi bu añ jotee nga ne maa ngi dem ni mm-hmm. au lieu nga jógee sa palaas dem añ ba da ngay woo ñu indi la añ bi si sa bureau mu nekk maafe doomu daa bu saf sap yàlla buñ koy defal nag toq limon te ki nga xam ne mooy aji chrétien bi bu fekkee ne xelam dafa ne ci daa bi te bu xëyee balaa muy lekkat ba mu jotee dellusi waaw léegi yow mi jël sa domoda toqal ci limon yàlla bu mu am njambaanu daxaar ba ne ko ci cip ci biir mu cof cofi xam nga loolu dafay feesal gémmiñ tuflit ñaareel bi ah. boo demee ba suba teel ba suba teel ba suba teel diggante sept heures ak ñu yegg seen téléphone yi allo kookaan la madame Mbow waaw man la madame Mbow man maa yónni mbay ne ko mu demal ma pâtisserie defal ma pinceau wara mu defal ma rondelle wara mu defal ma brioche waaw madame Mbow bi nga xam ne nag moom moo yónnee loolu ñoo fekk ki nga xam ne mooy madame Sarr nga xam ne ñëpp xam ne madame Sarr chrétienne la madame Mbow jël li nga xam ne mooy brioche bi xoti ko tipi xoti ko daal di koy ibbi su ko ibbee mu xali ko mu jël chocolat ba nag ni ko ci ndip def ko benn kuus ni ko ko defaat ko beneen kuus daal di koy tappale mel ne ku ko ndapaj oh. su ko defee chocolat bi daal day gàll mel ne ku lay mbëllee oh. waaw bu fekkee ne yow chocolat moo lay daana yaa ngi yàq carré mu jàmbur waaye nag li may gën a métti ah. li may gën a métti ah. bu ñu demee ba diggante bi nga xam ne ñëpp añ nañu oh. te yow xiir baa lay gasal jaaykatu kerem bi ne ci buntu TFM daa day defar ay kerem yoo xam ne kerem ya dañ koo buy buy buy buy weex tal am soo boo xam ne dañ koo soowa soowa soowa ba pare tëmbal ci ñetti raisin raisin bi di la di di la mbalee ñu ne déet ne waay am ñoo xam ne dañuy bàyyi diggante quatre-vingt-cinq heures ñu commandé fataaya oh. xoolal fataaya rek fataaya nga xam ne boo ko gisee rek sa xel day dem ci nopp ndax mi mu kubóoree noonu ba nga ibbi ko rek fekk ci ñam-ñamali ci biir oy léegi bu la neexee nga lekk ca fataaya kay sa xami naan waaye duñ ko def madame Mbow da koy jël jël li nga xam ne mooy soos bi ibbi ci ne ko ci nga foog ne day tëj mu jël mu taat bi loxoti ne ko ci ndib oh. nga foog ne day tëj mu def ci kaani tëj nga foog ne day tëj eh defal nañ waaw léegi fataaya ak limon du ñu jotee mu ne ci capat limo man limon may daaneel mu ci capat limon bi daal ko ci boole rek ne boo bon appétit bu sa xamee rek sama xel mi sa xamee waaw loolu yaa ngi yàq carême bi kon nag jullit yi war na ñoo sóoraale chrétien ñi nekk ci biir waaye li tax may gën a mer nag ci TFM laa ko jëmale waaw léegi maire bi nga xam ne mooy jaay sora <laughs> day bàyyi ba diggante deux heures deux heures mooy la carte mu ne barak egsi gàddu añ bi añ boo xam ne ñetti palaa lay defaat mbaxalu saalum mu teg ko ne le way defaat tamit maafe gerte ah, way ñu demaat tuuti mu defaat sebon boo xam ne bopp jëndi sax dañ lay mbalee yaboy bu sewut boo xam ne génn nga ca boppam tut buñ ci defee diwtir na ko ci ca yokko ci paañ ba sànni ci karawet ya ci tuufa ya oy xet ga daa ubale ci yoon bi yëpp doo gis kenn koo xam ne da lay weccali ñëppay dem bàyyi la ca bureau bi xam nga laajuma la bu defee loolu dafa nekk loo xam ne dafa yàq Karim kon nañu wàññi lekk yi ci bureau yi te bàyyi tamit di commander ay lekk ci bureau yi loolu baaxul ci ki nga xam ne mooy chrétien bi nekk ci carême bi len nag mun naa ko ah. man boo doon rey xar sax di ko misi bugguma boo doon lekk ginaar di ko ah. roof bugguma soo jëloon poisson braisé di ko def lu ne bugguma waaye chocolat sokola men boo xotee mburu boo bañee yëngal wara lu yàq sama carême rek bul ko dil gis nga boo ko xasee ba ibbi nii ba jël kuddu gi ba toqal ci diwlin tuuti mu niin di mat di niin di feeñ di niin di feeñ di niin di feeñ nga daal di koy yëngal ne ko ci mbàcc bul raay de defaatal mbàcc bul raay de de boroso ko rek daal di ko ci cap rek kon mbokk yi mbokku jullit yi mbokku chrétien yi loolu moo nekkoon tey mm-hmm. waxtaan bi ci lekk ci kanamu chrétien bi nga xam ne yéen a bokk bureau mm-hmm. kon nañuy sàmm diggante yi tey sooraale loolu xet gu neex gi romb ci kanamu chrétien bi mooy lekk bi ak ñam bi ñuy commandé ci bureau yi mm-hmm. mooy lekk bi nañu koy moytul chrétien bi aar la jóge nekk TFM nee na ay collègue dañu koy tooñ ba bu ne di togg ay togg yu neex abésa alléluia Jésus Christ jërëjëf